ci laboratoire yi gën a mag ci àdduna bi sucria suukar bu naturel jóge ci meññeef yu mel ni xaal ak poire te di naayil yaram sucria du suukar bu lay gaañ moo mën dem ci lépp loo bëgg suukar te cafka bi dafa neex sucria du yégal benn yoon sa suukar te àndul ak benn loraange ginnaaw fagaru moo gën faju yéen ñi jabetul sax mën ngeen koo jëfandikoo sucria daal mooy noflaayu ñi bàyyee xel seen suukar sucria le sucre diabétique de dernière génération. sonn na dee te ba dee sonn gu ñoo tuub ñooñu koy ñaga safara ñooñu koy problème xam na ñaareel bi tamit ñi nga xam ne ña ngay naan sàngara te yëgaguñ ne décret bi wàcc na ñooñu tamit yàqule nañ yàlla nag wàcce aay yi ko ca ne lépp loo xam ne nit ki dafa ko doon def te fekk teree guma ko boo ko defee ca ñooña ba dee ca tamit du la tegg dara loolu du ma la ci teg dara loolu jàngoon nañ fi lu mel ni moom te suratu baqara bi yàlla indee taxwilul xibla xam nga am na ci saxaaba yoo xam ne taxwilul xibla muy wëlbati xibla gi di jullu màkka fekkul leen fi ndax fukki weer ak juróom-ñaar la ko yontu bi sonn def ci madinatu munawara muy fukki weer ak ñaar ko fa njëkk yam njëkk a def madina xam na ci diggante bi saxaaba yu bari génn àdduna waaye bañ ko laajee yonent bi tamit dafa ne dara fekkul leen ci euh, maanaam seen julli yooya wa maa kaana laahu li yudiia ko seen julli ya ngeen julli woon imaan foofu salaatu lay julli lay tekki julli ya njëkkoon a julli njëkk may def tax taxwilul qibla togguma leen ca dara yàlla man yàlla nangu naa ko ndax booba décret bi wàccagut parce que loi bi buñ ko wateegut kay ku la neex mën nga ko mën nga ko koo appliquer waaye buñ ko xasee watee ko tere ko kenn sañatu koo defati sàngar tamit yéen ñu ko doon naan ba dee fekk xaraama gunu ko te yéen a nga gëmoon yàlla di julli bu ngeen dee ku leen njëkk a xal jaara leen njëkk a dee ngeen ci xamatu leen ci benn bàkkaar dana wax tuuti door a wax si loolu moo tax mu ne wa atiiu na ngeen topp laaha yàlla wa atiiu ngeen topp rasula yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam waxdaru na ngeen moytandiku fa in tawalaytum bu ngeen dëddoo wane gannaaw faalamoo na ngeen xam ne annama ala rasul naa déet di war suñu yonantu yi balaa xulu dul jotal almubinu gay aji biir laysa an lasina déet di war ñi nga xam ne amanoo gëmoon nañ yàlla wa amiloo ñu daan jëf di jëf yu baax yi xamuñ junaahun bàkkaar fii ma taimoo ci sàngara ñu doon jëfandikoo di ko naan fii maa tax yi moo ci sàngara sañ naanoon ida mattaqaw ndam teet nañ li yàlla xaraamal yépp wa amanoo ñi sax ci gëm yàlla wa amiloo ñuy jëf saalihaati farataaki naafila yi su mattaqaw topp ñu teet maanaam li yàlla lënt yi maanaam yi yàlla yi lënt yépp yàlla tere ko mu nekk yu lënt yépp ñu wan ko gannaaw wa amanoo ñu sax ci ngëm su mattaqaw topp ñu teet tamit lépp loo xam ne yuñ sibi la wa ahsanoo ñu rafetal walaahu yàlla yuxibu dana mu yool mos nin way rafetal ña boo demee indi ñetti ittaqaw njëkk naa wax it ittaqaw waxaat suma taqaw waxaat suma taqaw boo demee ci jalaal dafa ne ñetti it ittaqaw yi duñ benn benn bu njëkk bi yaa yooyu si amunu taqullaaha jëm njëkk mu jëm ko wax ne ittaqaw ju njëkk ji mu mooy ragal yàlla te defee ko ci maqaamaab islaam bu ñaareel bi suma taqaw mooy ragal yàlla ci maqaamaab imaan suma taqaw ji mujj ji mooy ragal yàlla defee ko ci maqaamaab ihsaan te diina ñetti doom yi rek la xam diine moo taawloo islaam ñaareeli doomam di imaan caatam mi mooy ihsaan ñetti doomam yii nag kenn ku ci nekk jural na ko ay sët taawam bi moo gën a njaboot taawam bi moom islaam muy islaam moo gën a njaboot mooy mooy julli julli juróom yi xoor weeru koor joxe asaka aj màkkaak yi ci aju juróomi sët la am ci moom imaan amal na ko juróom benni doom gëm yàlla gëm yonent yi gëm malaaka demeet gëm dekki gëm gëm dogal waaye ihsaan moom njabootu ñaari doom rek la am mooy caatam mooy muraqabatul kubra ak muraqabatu suxra muy an taabudalaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka kon ñett yi bu ñu leen boolee moom la ñu tuddee diine islaam iman ihsaan ñett yi nag benn bu ci nekk maqaama la am na ñoo xam ne seen diine ji la muy yaatu yaatu yaatu ci lislaam rek lañ xem xam na ñoo xam ne seen diine ji li muy rëy rëy ci iman rek lañ xem am na ñoo xam ne nag seen diina ja hegg na ca dayoob lañ soxla mooy ihsaan lépp lu ñuy def dañ cey bàyyi xel yàlla te di ko rafetal ni ko yàlla santaane boobu nag mooy dayoo ba maanaam ihsaan nag mooy gaaya ba foofu moom ku fa hegg rek santal yàlla su ko defee nag léegi kon ñetti maqaama yëpp ñu dund ko moo tax bu njëkk bi ittaqaw gu njëkk ji ma firi lee la ko yu xaraam yi boo nekkee ci lislaam li yàlla xaraamal da koy ba ittaqaw bu ñaareel bi yu lënt yi mooy imaan boo nekk boo gëmee yàlla piir nekk mu'min da ngaa war a baxi wilant yépp bu ñetteel bi nag mooy ixsaan nga nekk muhsin yeneen yi nga xam ne dañ koo sib sax danga koo war a baxi ngir ba maanaam bëgg a tàbbi ci yu xaraam yi yooyu yëpp kon nag nañ ci baxi xel aaya ji nga xam ne moo ci tegu yaa ayyuhal lazina amanu yàlla nga ko wàcce ca xaswatu xudaybiya mooy bi yonentu bi amee juróom-benni at ci madinatul munawara nag saabaam yi ne nañ dem makka waaye nag xeex taxul ñoo jug dañoo namm kaaba ga bu ñu demee umra wër kaaba gi ñib ba ñu ñëwee ba Xudaybiya ñu taxaw foofa kàmpe fa léegi nag waa màkka yi tamit ñoom ne du ngeen fi dugg bu yonentu bi forcé na danañ dugg ñi danañ dugg rek deret tuuru te moom jara jaralut ko deret gi tuuru ci lu duhul yoon dafa yërëm ñi mu jiite ku yërëm ñi nga xam ne da leen a jiite da ngay suuraale deret ju tuuru léegi nag ci la yonent bi yónni naa Omar ne ko demal nga waxtaan ma waa Màkka ne leen damaa ñëw rek ngir wër si Kaaba gi umra mais ñëw ma ngir xeex mu ne ko dama faa néewi mbokk te bari fii noonu su ma demee rek mën nañ maa rey waaye danaa la proposé koo xam ne boo ko yónnee li nga bëgg dana xam ni nga ko bëggee mu ne ko kan la mu ne ko mooy Seydina maan ko fa bëri ay mbokk la te ku nit ñi respecté la mu ne ko d'accord naa kon yónni nañ ndaw ndaw la proposé beneen ndaw loolu tamit baax na ba tey baax na léegi nag yonent bi yónni Seydina Ousmane mu dem ba mu ñëwee ñu ne ko mu ne leen yonent moo ma yónni mu ne leen dafa ñëw rek ngir wër si kaaba gi mi ngi fii ci Xudaybiya soriwul dara ñëwul ngir xeex ñu ne ko yow de may nañ la yow nga wër kaaba gi noo ko bëggee dox safa ak marwa waaye sa kilifa googu mayuñ ko moom mu jege si tey ci xat mi ci kaaba gi Usmaan ku baax la mu ne lépp luñ xañ sama kilifa man soxlaatuma ko nit ku baax luñ xañ sa kilifa waroo koo jël xamoo ko gën a rëy sa kilifa ku la xeebal sa kilifa bàyyi ko ak ku mën a doon kon nag mu ne man lu sama kilifa bëgg laa bëgg lu mu bañ bañ naa ko ku mu bañ bañ naa ko léegi nag mu wan kaaba ga gannaaw ne ko kaaba gi li ngay foor y bu ñu lay wër ba lay foon tax bu la taxutoo nag moom yàgg doj yëpp a xem léegi nag seytaane siiwal ne rey nañ Seydina Ousmane te xam nga ndawal buur bu ñu ko reyee rek xeex mën ta ñàkk bu ñu fi reyoon benn fi ne foog ñu xeex kenn mënu ci dara yonent bi ñëw moowoon ngir xeex waaye su fekkee rey nañ Ousmane jooju dëgg la foog xeex man mën ta ñàkk mu jël benn loxoom bi ne mooy sama jëmm beneen loxo bi di càmmooy bi mu ne moo représenté Ousmane mu dër ko man maa ngi jaayante ci deretu Seydina Ousmane yi pour ñu dugg ci dëkk bi xeex saxaaba yi ñëw jaayante biñ jaayantee noonu rek ngir Seydina Ousmane ñëw ndeketoo foo information la bu doon léegi daal nga ne réseaux sociaux yi ñoo ko sos rek lu fi yàgg la léeg nga gis dara ñu quelque yoy yàq la ba jëratoo dara fekk dara lépp ay faux rek la lu fi yàgg la gaa yi léegi xegg nañ ci kole monté la ci lépp rek bi coow loo amee ñu yesul naa Ousmane ñu toog tuuti gis Suhaylu ci la yonentu bi dataan def tafa tafaul moom du lu mais day gaat nga mu ne yaa màkk de bëgg nañ jàmm comme ki ñu yónni nii muy seen ambassadeur bi Suhaylu la tudd Suhaylu mooy tekki ku jàppandi ndax boo ko tasxiiree tasxiiru sëhlu la mu ne ah kon ñii bëgg nañ jàmm mu xoo ko nag mu ñëw lu ngeen bëgg mu ne ko ah waa dëkk bi daal màkk liñ d'accord seen kilifa ya mooy nga wàññeeku ñibbi waaye nag ba déwén déwén daal lañ la may nga ñëw wër si kaaba gi dañ la may ñetti fan loola loolu neex nga def ko mais ren man ta te fekk yonent bi waxoon na sahaaba yi la tadxulanna insha allahu aminina muhalliqina ruusakum wa muqassirina yu bëri fekk xarmal nañ yàkkamti bëgg a dem na mu dëkk ba lool yonent bi ne ah bu ngeen xeboo rek eh, eh, loj seen hadiya seen hadaaya yi yéen ñi yore gëléem ñi yore nag ñi yore ay xar nañ reen di te ñu dëppaat suñ suñ suñ umra gi am na am na am na ci biir nag fi ñu xarmalee rabi jiir yi ñëw di leen gaarlu foo toog ba doom yaa ngeeg cokeer yaa ngeek yooyu yëpp te dañ leen ko tere boo xasee xarmal ci xumra mbaa nga xarmal ci ak amuloo droit di rëbbu rab yi ko jug jéer yi mënoo ko rëbb mënoo rëbb bodom mënoo rëbb kéwél mënoo rëbb bukki mënoo rëbb maanaam nagu njaa àll yi ak mbaam àll yeeg yooyu yëpp dañ lay tere nga ray ko soo ko rayee lislaam dafay wax ne nañ seet ñaari borom xam-xam yu maandu ñi seet rab wi nga ray wan la tolloog ci juri kër yi nga joxe ko booba nag ibnu Abbas lim atte mu ne képp ku ray maanaam bukki da war a joxe nag xam nga nag ak bukki moom sorewuñu mu ne ku ray nag ku rey bukki nag ngay joxe mu ne ku rey gëléem da ngay maanaam euh, ku ku ku rey maanaam euh, kéwél kéwél yi wala nga rey borom xar ngay joxe wala bëy moom ngay moom ngay joxe ku rey nag mu ne nagu njaaxal la mooy nagu euh, mooy ximaarul waxshi ibnu abbas ibnu omar abba ci omar ibnu xataab ali ibnu abi taalib ñoom ñoo ngi na ñu ne gëléem ngay joxe soo waree joxe gëléem nag amoo ko dañ koy xayma ci mudd lim tolloog ci ñam ñu ne fanweeri mudd la war a tolloog nga joxe ko boo amul mudd ya nga xoor fanweeri fan su fekkee nag da waroon a rey da ngaa rey bukki waroon a joxe nagu maanaam nag amoo ko ñaar fukki mudd ngay joxe soo ko amut nga xoor ñaar fukki fan su fekkee da ngaa rey bodom wala nga rey kéwél dangay ngay le da ngay da ngay moom boo ko amut nga lexal juróom benn miskin soo ko amut ñu ne nga xoor ñetti fan rek su boobaa dana dana ko mën a yóbbuwaale ku rey nag rab woo xam ne xay maam amut ci rab yi picc nga rey euh, wala nga rey maanaam caku ak yu mel noona dañ lay wax nga tibb ci sa loxo yi ñam nga joxe ko ku rey nag pitaxam màkka dañoo foor seen maam dafa liggéeyoon seen maam moo fekkoon yonentu ba ca xuntuma protéger ko moo tax gis nga pitax yooye boo ci rayee benn xar ngay joxe loolu la Ibnu Abbas wax kon ki maamam liggéey ak ki maamam liggéeyu du nekk benn ñee seen maam yaa liggéeyal moo tax nga seen sët yi ñu ngi gis ca Kaaba ga ñu ngay ñëw di naaw di ko wër yéen ñu dem màkk xam ngeen ko kenn du leen gaaral waaye li seen naaw yooyu bëri bëri kenn du naaw ba traversé Kaaba gi koo ci gis mu naaw traversé Kaaba gi nii rek dafa feebar te bu ko traversé rek wér loolu mooy mooy médicament bi koy wéral waaye bu ko mooyee nag dañ koy dañ koy wër nii di naaw di ko wër comme ni ko nit ñiy wëree waaye kenn du leen rey yaa ngi gis sax nit ñi bu ñuy dem am na ñuy utee fii dugub ñu ut fii ceeb bu ñu demee di leen ko sotti ñu koy lekk seen maam ya ñooy ñaari pitax ya fekkoon yonentu bi ca kuntuma xéeféer yi bëgg koo rey gannaaw bi jargoñ bi ñëwee jargoñ garabu raa atuga ñëw sax fa ñoom ñu ñëw tamit def fa seen i nen bay bóof gaa yi ne ak ah, yi dibarki démb lañ fi génn ak léegi ay pitax munu fee nan bay bóof daal di wan leen gannaaw yàlla faye leen tey seen sët yooya ak seen maam ya noona wa kaana abuhuma saalihan jooja daal moo moo leen dal jooja ñooñu seen bàyyi dafa liggéey yàlla nañu ko yàlla defal ci rab yi ñu doon doon gaaral moo tax mu ne yaa ayyuhal lazina yéen gaa yi nga xam ne amano gëm nañu alquran la yabluwannakum dana nattu leen laahu yàlla bi shay'in ci lëf ne saydi ci laala moom rëbbu rab way ko jug jéeri la naa tanaaluhu goog dana jot ko aydikum seeni loxo yi wari maahukum ak seen guntux yi yàllaan ko tere ba pare bëril ko seeni bët lu waral li la ma ngir na feeñal xam laahu yàlla man yaqaafoo ki koy ragal bil xaybi ci lu na ko waaye da koo bëgg a ci yéen fa man yaxtadaa képp koo xam ne jalgati na ba'da zalika gannaaw loolu fa lahu dal na ci kawam azaabun mbugal alimun mooy borom ak méttital yaa ayyuhal lazina yéen gaa nga xam ne aamanu gëm nañu alquran laa taqtuloo bu leen rey asayda rëbb way ko jug jéeri wa antum fekk mbir moomu yéen xurumun way xarmal ngeen ci xaj wala ngeen xarmal ci umra wa man qatalahu képp koo xam ne rey na ko minkum ci yéen mutahammidan mbir mu koy aji tay fa war na ko gisaa un fay wala bu am na ñu ko daafal fa war na ko gisaawu misla ma rey képp ram woo nga xam ne qatala rey na ko min an'aami ci juri kër yi dañuy seet rab wi nga ray ci àll bi wan la tolloog ci juri kër yi waxoon naa la képp koo xam ne rey nga nagu njaaxal moo tollook bukki loolu la ci Ibnu Abbas atte képp koo xam ne da ngaa ray maanaam bodom wala nga rey kéwél dangay dem nga joxe xar wala nga joxe bëy ku rey pitax da ngay joxe xar wala nga joxe bëy ak demeet comme ni mu la ko waxee waan su ko defee nag moo tax mu ne yax ku mu dana bi bii ci xayma boobu mooy bi mu tolloog koy xatte ñaari góor mu xasaf ko ñaari góor ñoo xam ne sa waxat lim ñaar ñu maandu la ñuy doon gor lañ góor la ñu doon dañuy maandu min kum yu bokk ci yéen julli la ñu doon du nekk ay yéeféer hadiyan mbir mu muy nekk di hadiya joo xam ne baalixal kaabati day jote ca kaaba ga dañ koy yóbbu ca kaaba ga boo ko rayee fii du wér moo tax boo fa rayoon aw rab ci jamono ji ngay ci ñib si nga da ngay bàyyi ba nit di aji nga laajte foofa tegatu loo rayoon fii loo rayoon foofa nga ne bi ma xarmalee li ma rayoon bukki la ñu ne la kon nag ngay joxe boo demee ci gise dañuy jaay ne nag nangam lay toll ci ci réal su ko defee nag nga jël waa ji jox ko xaalisu CFA bu demee mu weccee ko ko ci réal bi jëndal la ko foofa su ne man nag li ma rayoon borom la ñu ne xar nga war a joxe wala bëy booba tamit boo demee foofa gise yi jaay ci wetu kaaba geeg la ko war yépp foo toll nga laaj lan mooy njëgu xar dañ la ko wax yow tamit nga joxe xaalis ba versé ko ñoom nag boobaa ñoo koy ray yow sax doo ko gis doo ko doo ko gis waaye boo rayee rab woowa gannaaw bi nga xarmalee nga jaalal bi ko di ko fayee fii te yaa ngi ko rayee Sénégal du mën a wér foofa lañ koy foofa lañ koy yóbbu miskin yi ñooñu ñoo ko moom moo tax mu ne hadiyan baalixal kaabati foofa la war a jëm dégg nga moo tax mu ne hadiyan mbir mu muy hadiyu baalixal kaabati muy aggi jote ca kaaba ga aw kafaaratu tahaami masakina wala le maanaam kafaaraaxee ko ci leyal ay miskin maanaam miskin yi dañuy xool rab woowa nga rey lim tolloog ci xayma ci ñam nga jox ko miskin yi miskin bu ne nga jox ko muddu boo ko mënut aw adlu daalika mbaalu tolloog loola siyaaman ci koor ñu xool mudd yi nañ toll bu dee fanweer nga xoor fanweeri fan bu dee ñaar fukk nga xoor ñaar fukki fan yàlla lu tax nga def ko mën a liyasuuqa ngir na mos wa baala amrihi tiis ak fayak jëf jooja tiis ak fayak jëf jëla la yàlla faya ko waaye nag afa jégal na laahu yàlla am amma salafa ci li passé li passé woon ngeen ni xarmal di rey rab te fekk xaraama guluma ko dara nekkut ci waaye bis ni ki tey xaraamal naa ko wa man aada ku ca dellu fa yantaqimu dana mbugal laahu yàlla minu ca moom wallahu yàlla asisun ku not la ci nguuram suntiqaami borom ak mbugal la kon loolu leer na kon ray rabit ab yaa ngoo képp ko ti ray leen amoo ca droit gis nga dafa garaaw ba sax yow mii même boo ko rayut ku xarmal moo ko ray togg ko doo ci doo ci mën a lekk tey boo xasee xarmal ci aj wala nga xarmal ci xumra ko xa ni yow dem rëbb bodom wala mu dem rabbu ak kéwél togg ko doo ca sañ a lekk waaye ku xarmalul nag bu ko toggee rëbb ko togg ko yow sañ nga caa lekk yow mi xarmal yooyu yëpp dañ koy tere kon gis nga yàlla dafa def màkk muy place ab sécurité waxuma nit ña waaye sax rab ya di dund foofu dañoo xam sécurité ba kenn du leen gaaral boo xasee tàbbi ci xarmal ga léegi nag dafa am yum cay setti lay wax si nii dafa am yoo xam ne nag boo xarmalee mën nga leen a rëbb dara nekkut ci mooy nga nga rëbb rab yoo xam ne kojug géej la bu la neexee nga xarmal ba pare dem ci géej ga di jën di rëbb jën bu la neexee nga dem di rëbbi gaynde géej bu la neexee nga dem di rëbbi nagu nagu géej lépp luy rab ci biir géej gi rek boo xarmalee mën nga koo rëbb waaye nag liñ la waaye nag day fekk rab booba tamit géej rek la manee waaye dafa xam ci rab yi rab yoo xam ne manee nañ géej manee jéeri bu ci manee jéeri manee géej demee ni mbëtt yeek ak ak yeneen yi mel ni saaw yeeg ak yeneen yi mën nañoo dëkk ci géej gi mën nañoo dëkk jéeri yi doo leen sañ a rëbb waaye xam nga jën moom géej rek la ma ne bu génn géej di dee am na tamit ci rab yu mel noona yoo xam ne géej gi rek lañ manee yooye nga sañ a rëbb waaye rab woo xam ne moom ci ñaari terrain yi bu ne bu ne manee na fa boo xasee xarmel doo ko sañ a rëbb naka noonu tamit rab yi nga xam ne dafay féey dee nañ ba pare saan di féey ci kaw géej gi nii gannaaw bi nga xarmalee man ngaa dem nga jël ca la loo bëgg lekk ko dara nekkut ca euh, gis nga kon loolu la la yàlla may waaye lee mayul la ko dégg nga moom lay wax si nii moo tax sama borom ne uxila daganaleef na làkkum ñeexal leen saydul baxri rëbbu rab way ko jug géej wa taxaamuhoo ñamam dagan na mataxan muy nekk yóbbal làkkum ñeexal leen wali sayaarati ak ñeexal seen way tukki yi waaye wa xurima xaraamaleef na alaykum ci yéen saydun bari bu rab way ko jug jéeri maa dumtum fekk sax ngeen xuru man mbir mu ngeen way xarmal wattaqu na ngeen ragal laax yàlla fi yàlla ma nga xam ne tuxsaru na def na pang leen yéen yëpp ilay jëm ca moom mu xatte leen kon rab wi nga xam ne mooy ko géej lañ la may waaye rab way ko jug jéeri tere nañ la ko te gis nga géej gi lu ca nekk bu génnee rek man nga koo lekk gis nga rab rabu géej amut poson ndox mi dëkk moo tax boo génnee rek donte da ngaa génnee mu dee sax lekkal jën amul poson ndax nekkul fu koy jant bi di lakkee waaye boo gisee rab yi am poson ñi bëgg bala nga koo sañ lekk foog nga rendi ko ba poson bi nekkoon ci moom war a génn ànd ak deret ju puufu ja mooy rab yi dëkk ci jéeri ji ndax tàngoor woowu ñi seen xam-xam màcc ci wàllu médecine dafay dafay dafay jaxasoo ak deret ja deret jooja mu jaxasoo nag la ko mën a génnee mooy rendi rek boo rendee rek deret bi nag deret ji puufu jooju moo tax mu nekk sobe day génn ànd ak microbe bi ca nekkoon ci nga koy sañ lekk nag waaye bu meddee nga lekk ko rek dangay dangay lekkaale microbe ba ca ne waaye nag buy géej gi ñoom amul fu ko jant bi tàngalee mën ngaa génnee rek lekk donte rendi hoo defoo daal kon gis nga yàlla kenn du moom xamul dara lu muy digle lu dul njëriñal jullit ña ca ne xamul dara lu muy tere lu dul loraange jullit ña ca ne kon nag lum ñu tere rek terewuñ ñu ko ngir xatal ñu waaye lum ñu digal tamit digaluñu ko ngir yaatal ñu waaye lu ca nekk rek suñ njariñ rek moo ca ne kon nag nañ teg foofu suñ baaraam yi bu ñu fi yàlla indee ci suba ci waxtu wi ñu dugg ak yéen nag ci kaaba geeg njariñ gim ne ak Makka ak njariñ gim ne nekk na place ab sécurité nekk na place boo xam ne fa la ñuy màngee suñ ñaari dund yi lu ñu dundee ci àdduna bi ak lu ñuy dundee tamit ëllëg ci àllaaxira lépp li koy consommé li ñu koy consommé maanaam ci ci njariñal Makka benn mu nekk rek mubaasara mbaa xayru mubaasara am na ñoo xam ne ña ngi koy def directement ca màkka am na ñoo xam ne ñu ngi jël seen xibla yi seen mihrab yi di ko dàq ca màkka ngir mën a consommer leer googa ñu mën see dundal seen seen seen leer gi kon màkka moom kenn mënu koo wan gannaaw xéewalam la goo xam ne ñëpp ko ñëpp ñëpp ñëpp ñëppay jëriñoo xéewalam loolu nag suba ci waxtu wi lañ koy gën a mën a leeral ci insha allahu jaala allahu alkaabata albayta alxaraama qiyaaman linnaasi mooy nekk suñ bopp darsu yàlla na yàlla yóbbu ñu ci ñi ngi sant ndeysaanam tey ñi nga xam ne ñi ngi topp tafsir bi rek ci réew mi ak ci bitim réew ñi nekk Italie ñi nekk Amérique ñi nekk Washington ñi nekk fu nekk Canada ñi nekk Arabie Saoudi juróomi continent yi ci àdduna bi yëpp wal fajir yi ma ngi fay tëmbee ñi koy topp te mi ngi leen di sant di dolliwaat ñaan suñu waajur wu tedd wi nga xam ne moo ñu may tey ñi addu ngeen di dégg di Seydi Mouhamadul Amin yal na yàlla yokk leeram sant nag tey ñi nga xam ne tey ñooy suñu gan ñi suñu Abdoulahad Diouf di borom xam-xam di conférencier tabaarakallaahu alaaji Keeba Ndiaye al oustaz Moussa Thiam moom bu weeru koor jotee rek si ñun la bokk bu weeru koor yi passé nag moom ñu bàyyi ko eh, eh, ca ca beneen làng ga su ko defee tamit àll yu ndaw mi ngi fi Modou Ndiaye mi ngi fi mu Modou Cissé tabaarakallaahu alaaji Ndiaye ñi ngi fi Ousmane Ñaan ñoom ñëpp ñi ngi fi Alsaan Guèye sëñ Abdoul Aziz mi nga xam ne nag moo ñuy wax aayaat yeeg fu ñu tolloog yëpp moom tamit mi ngi fi Ah, ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu subaa ci wi rek ñu sof ak yéen li ñu sosoon ak yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. LPD librairie papeterie Daraji TQG Touba Quincaillerie Générale C3S compagnie Serigne Seck Sénégal. Laclé meew bi gën ci meew yi. Total Home Choice Sénégal. Transvi Bisco seen couche lingette ak mouchoir Sleepy. nga leen émission tafsir al quran leader dans la vente de fournitures scolaires de marque Centrum de consommables bureautiques et informatiques d'encre imprimante de marque Easyprint de papeterie de marque Navigator et de stylo de marque Luxor la librairie papeterie Daradji LPD se positionne